jàmbaar ji nday jël liggéeyul nag ji koy golab kër lay yor golab kër dañuy daal di jëtt ci diggante bi yeew ko ci ndigg li mu dëkk yóotu te du jote mukk jàmbaar ji nday jël liggéeyul tàggu ku laxasaay bu dégg bëccëg waaye bu jaaxlee ki dul tàggu mboo mu koy dimbali ndax liggéeyu nday mbind mu ñu yaxal la doomay gontu maas ko ku jàkkaarloog baat ba xam ko ngërëmal way jur gàllaaj gu dul toj la yàlla ku mu naru tafay du la kon ku baax wéttaliku ku yaru falu ku réew réer ku réy ñàkk ñu gën bakkan du mbaam waaye ku ko taa wàcc moo ñeetu la ku jàpp sax ruu jënde kese bu la sukkuraat ni yoo nga perte ku def sa bakkan yilimaan mu tàbbale ci jàkka joo bëggul woon a jullee kon ñu baax suñu yeboo juboo ñu bon leen bëgg gàcce penc nag yetta koy yóbbee as gor waxtaana ko dof te déggal ko ak diisoo kuy war ak lépp alali jàmbur foyee ko ndax yett yokkul yett waaye fu yett yàqoo yett fekke na ko alal yokkulub bokk waaye fu bokk yàqoo alal fekke na ko ay war yokkulub ànd waaye fu ànd yàqoo yi war fekke na ko kon ngor tool la ku ngor la tool ak sa tool toogal bu lu ngoo ci ku la ko génne lànkal ci toolub jàmbur la lay jëmi te boo xasee dugg ci toolu jàmbur te neexul boroom werante lay indi te werante jëf ju ñaaw lay taawloo jëf ju ñaaw day yàqu bokk di yàqu ànd te dañ ne ku iñaane say dono saw deewin ñaaw waaye ko iñaane say dono sa mujjee ñaaw ndax sekkare akob set ak baatin ci néegub xam ba ca la ñuy dëkk baatin yàlla bu ko xasee dugal ci dënn ba kaste ko ca fit ba ko war a may nettali ko yàlla du ko ca boole baatin soo ko nëbbee mu feeñal la waaye soo ko weeree mu nëbb la